lettre yi ñu déposé tey fi nga xam ne mooy centre des œuvres universitaires de Dakar ak commissariat du COUD li ko waral mooy suñu camarade bi nga xam ne semaine ba la ñu jóge muy Joël Ahi nekkoon espoir de la nation sénégalaise bi doon jànge université Assane Seck de Ziguinchor dañ koo jamatee rey ko fi nga xam ne tey mooy si zone canal 4 bi Claudel donc loolu nag muy loo xam ne ñun waa FRAPP ICAT dañoo jàpp que ne étudiants yi nekk si université Cheikh Anta Diop de Dakar yëpp nekk si campus social bi ñun ñëpp mën nañoo nekk ay Joël Ahi ndax kat umpale woo leen que ne foofu noonu di Petite Porte jaar si canal 4 bi dem ba si Claudel zone la boo xam ne tey mën nañoo ne day représenter insécurité bi am fii nii ci Dakar ndax bëri na ay yoo xam ne tey jii nii même buñ leen fa rayul dinañ leen fa agressé te li ngeen si xam mooy que ne zone boobu noonu li fay aw si ay ëpp na ay milliers des milliers ay junni junni étudiants yu góor ak yu jigéen yu jigéen ndax jigéen ñi jàngee Claudel bu ñu bëggee réviser si université Cheikh Anta Diop Dakar foofu bokk na si yoon yi nga xam ne fa la ñuy donc ñun ñi ñu jàpp que ne ñun waa FRAPPICAT ginnaaw ñi nga xam ne ñoo suñu ay délégué ñi nga xam ne ñoo suñu ay représentant si université semaine jot na ginnaaw bi ñu reyee suñu camarade Joël adduwuñ si yéeyu ñu yàbbiwuñ si ñun waa FRAPP ñu jël tey suñu responsabilité déposer lettre benn si fi nga xam ne mooy kudd ngir wax leen ñoom waa kudd au sein du kudd ndax police dugg si université depuis bi ñu reyee étudiants yi loolu kudd dafa am si biir université mais bokk ak police yi nit ñi xam donc ñu ne leen ñoom waa police kudd ñu jël seen ay responsabilité si alentour université yi li ñu fa mën a déployer ginnaaw loolu ñu ñëw fi nga xam ne tey jii mooy si commissariat point E bi nga xam ne foofu noonu périmètre de compétence su commissariat point E la donc bi ñu ñëwee tey jii nag wax dëgg neex fa yàlla ñu ngi rafetlu attitude bi ñu fi fekk si commissaire bu bees bii nii ñu fi fekk commissaire Thiam recevoir nañu ñun ñëpp dans notre intégralité yéen journalistes yi gis ngeen ko bi ñu ñëwee déglu nañu wax nañ ko ne ko commissaire ñun dañoo jaaxle ndax fan yi fii ba décembre université dañuy def ay examen am na ñoo xam ne commencé nañ seen ay examen te foog ñu réviser donc bi ñu ko waxee loolu mun nañu véritablement ndax étudiant woon xam na ne foofu noonu zone la boo xam ne moom déployé na fa ay moyens mais lu ñu war a renforcer la te jël na ay disposition tey pour que li ñu doon def foofu noonu ñu renforcer ko et ensuite dinañ fa def benn dispositif de caméra boo xam ne tey jii nii dañ mën a suivre à la minute près li nga xam ne mooy am si code bi wante mu wax ñu tamit que ne ñun étudiants yi xeex boobu noonu ñoom police ñoom kese mënuñu koo def foog ñu collaborer si ak ñun collaborer si ak COUD ñun waa FRAPP UCAD nag ñu rassurer ko nag ñun jël nañ disposition yooyu dinañ collaborer ak police pour que moom recommandation secrète yi mu jox si biir concernant insécurité bi am si zone boobu noonu ñu jëfe ko waxtaan si autorité COUD yi pour que étudiants yi mën a nekk si ay conditions mu mucc ay commissaire euh, joxe nañu information boobu léegi wax ñu que ne ki rey suñu ñooñ boobu noonu di Joël Philippe Ahi teg nañ ko loxo. donc ñu siy profité di jaajëfal suñu force de défense et de sécurité yi donc moom sax li tax ñu doon taaxirlu si lieu yi la nekkoon donc loolu as tuut ñun xaw naa wàññi chagrin bi nga xam ne tey jii nii ci loolu moo tax ñun FRAPP le président Macky Sall pour que mu defal ko benn salaire post mortem ndax ku commencé li nga xam ne mooy concours Eaux et Forêts nekk enfant unique si papaam nekk major de sa promotion bi mu commencé jàng ba léegi mérité na salaire boo xam ne famille leen jaajëfal wante sécuriser étudiants yi nga xam ne ñoom ñëpp mën nañoo doon ay joueurs ak